Euh, li ma ci bëgg a wax defe naa ni euh, baamtuwaat ko parce que li nga xam ni dafa jóge ci xol génne ko ci làmmeñ dina yomb sunu mag la gaa mais defe naa ni tey jii yéen ñu ko gën a moom yenn waa Ndar ndax li mu def fii Saint-Louis ba ngeen man ko defal lii nga xam ni ñun suñu bopp mënuñu ko defal defe naa ni yéen waa Saint-Louis la ñuy delloo njukkal remerciement yi nag nga xam ba bàyyiwuñ ci kenn waaye dañ ciy jiital nag buñ ci tànnee kenn rek Saint-Louisien yëpp man nañ ci gis seen bopp muy Bira Gaye mi nga xam ni euh, tey jii lii cérémonie bi yéen ñëpp yéen a bokk mais moom mooy initiateur principal te lim ñu wax ni dina ko def dina ko continuer di def parce que pour moom une grande partie de sa réussite ci Pape Moussa la ko jëlee. moom moo ko waxal boppam ñu gis nag euh, fii aussi dégg fi ay témoignages yoo xam ni euh, bañ ca bañ parce que bu ñu bu ñu limee dafay jum mais égal dañuy jum également mais du ñu fàtte ki nga xam ni moom suñu suñu mag la moo tax buñ ko buñ ko buñ ko bereel rek nit ñi dañaa mooy moom mooy Lafon mii nekk nekk ci suñu wet duñ ko bereel parce que ci ñun la bokk waaw mais yéen waa Ndar lañuy ñuy delloo njëkkal parce que sagal ngeen ñu sagal ngeen waa Thiès sagal ngeen basket wane ngeen ni également que lépp loo xam ne nit mérité na ko di ngeen ko ko jox te du ngeen ci seet dara. dama gis ni Pa Moussa waruñu waruñu neenaan li mu def ndar moo tax ma am xalaatu organiser mémorial bi parce que moom li mu def ndar dafa rëy rëy bu nga xamante ni mais warul nen donc euh, ma xalaat loolu organiser mémorial nit ñi nag ñëw jàppale ma si parce que tey jii nii moo tax booy xool. tout le temps man damay wax les amis de Pa Moussa nit ñi ñooy wax Birou mais man les amis de Pa Moussa laa wax ñoo organiser lii c'est pas moi. parce que les gens nit ñi dañu réagir spontanément ñii lu ñu am ñu def ko si pour organisation mën a mel nii. tey gis nga ñëpp ñëw nañu euh, ay mbokkam ñëw nañu ay ay ay rakkam ñëw nañu waa këram ñëw nañu ay jabaram ñëw nañu donc te lii ni mu meloon ak ñun moo tax parce que Pa li mu ñu defal ñun mënuñu ko fay. parce que tey jii am na noo xam ne buñ ko melee xale yu jigéen yi doon jëkk jouer noonu ñu mel noonu noonu am seen kër am seen njaboot am seen liggéey nekk ay responsable ci góor ñi nekk ay ay ay responsable ci fa ñu dëkk nekk ay kilifa fa ñuy liggéeye c'est grace à Pa Moussa parce que dafa dafa dafa jiitaloon jàngum xale yi ak yar bi léegi basket doogay ñëw donc moom donc réussir na ko waaw loolu dëgg la loolu moom boo gisee nit ñi nit ñëwee nii te des na Euh, dañu war a dañu war a dellu dañu war a àndaat pour intérêt basket bi parce que Pa Moussa moom moo fi réussir woon fusionner équipe ba ñëpp nekk benn donc waruñu dem ay vingt cinq ans après ñu bëgg tasaaroo donc nit ñi dañu war a dellu siwaat autour de l' essentiel maintenant lii moom seen est un léegi nag ku am dégg-dégg di nga ñëw ñoo àndandoo ku amul dégg-dégg nag man xawma ci dara nag mais intérêt bi daal mooy ñu àndandoo ñun ñëpp te eh, li ñu war a def pour Saint-Louis di dund di sax di màgg dañ koy defal suñu bopp parce que ndar lañ dëkk mais en partie dañ koy defal Pa Moussa.